abonné leen ci suñu YouTube ngir su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ci jërë ngeen jëf Ousmane Sonko nee na bu ñu ko bàyyiwul mu bokk ci élection présidentielle yu 2024 yi ay wote du am ci réew mi journal témoigné mi xëy bind wax ji ci xëtam mu njëkk teg na ci di ñu wax ne démb ko wax ca télé tubaab yi di France 24 dem na ca waxtaanoo bay wax ne bés bu Macky Sall ak nguuram nasee seeni pexe def seeni mathématique jël justice bi jëfandikoo ko ba teemaa bokk ci wote yi bu boobaa Sénégal dina a am ci réew mi réew mi quotidien nañu waaye moom jiital parti Pastef bi ci waxtaanam wi woon démb ak waa France 24 seetlu nañu ne moom Ousmane Sonko ubbi na as porox ndoll su ndaw ngirub dialogue diggam ak Macky nee na pare na ngir jéggale lépp bu ko jàmmi réew mi jare mu jaral l'observateur mu xëy di jàngat ak càmbar kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati démb ca France 24 bu tàngalee ba ñu ne ciy Sonko mu seddal ba ñu ne kii ko mu journaliste bi di Alioune Ndiaye moom li mu gis ci kàddu yi Ousmane yi woon démb ba wax ko l'observateur moo di Ousmane Sonko nu mu génnee ci ci biir l'observateur Ousmane Sonko mi ñu baaxoo bu APR gi ma convoqué woon keroog bi nañu ba mu ubbi ab ne képp ku bëgg a doon candidat na bindu yéenekaay bi nee nañu muy Abdoulaye Daouda Diallo di Aly Ngouille Ndiaye di Amadou Ba dañu ne pat mel ni ay néew ci watam serwe waxuñu ko li gën a dee sax mooy ñoom ñett ñooñu toog nañu ca ndajama ba ni ndaje mi jeexi ubbi wuñu seen gémmiñ bi Macky Sall gisee ne ñi bëgg doon candidat bari waaye kenn nanguwut a boppam ca ni ñuy def léegi moo di ku bëgg doon candidat da ngay defar sab dossier envoyé ma ko dogal bi mu jël jëm ci ne du bokk ci présidentielle 2024 yi moom président Macky Sall ci news mi ngi ñuy wax ne jur na ay ñaxtu maanaam ay groñ ci biir maire yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar loolee wuute na lool ak li ñu journal Tribune moo am ca Tamba bil yéene acte ci dogal bi président Macky Sall jël ba noppi jël dogalub taxaw ci wetam fu mu leen joxoñ foofee la ñuy xool candidat bu président Macky Sall tànn ñu taxaw ci ginnaaw jàppale ko ku Macky wax la ñu wax ku Macky joxoñ la ñu joxoñ ku Macky tànn moom la ñu tànn ñoom élus locaux yi ca Tambacounda yéenekaay bi mi ngi ñuy xamalit ne solidarité ak booloo ngir ndam ci présidentielle yi 2024 yi loolee la ñu gis élection présidentielle yu 2024 yi ñuy séentu am na gan gan gi Vox Populi nee na candidature am ci wote njiitu réew mi war am ci mi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 l'observateur nañu démb la ko def moom président bu mouvement action doon it chef département parasitologie ak mycologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru déclaré na candidature am loolee ginnaaw bi mu rafetloo félicité président Macky Sall ci déclaration bi mu def keroog moom mi def déclaration bi di président Macky Sall le mi ngi ñuy wax ne wax na démb li muy def ak ni muy def bés bu jugee ci bopp réewum Sénégal nee na du jugee ci continent bi tey du ci réew mi fi lay ki fiy toog su ay xalaatam mu laaye biir ko ko Walf Sall bu jugee woon ci bopp réewum Sénégal it du sonn du tumuranke ndax weeru yàlla sàkk dana laal dix millions boole ceekit mën na am ay ndombal tànk yu kawe ci kuréel gu ci mel ne organisation des nations unies l'observateur mel ne ku naan ñu lépp dafay sori jamono ji li ko sëkkatal mu war muy situation bu tar moo di gestion état bi ak gestion mbiri politique ci juróom-ñeenti weer yi ko fi dese ndax ginnaaw ñi mu jiite xam nañu xel ne dafay dem ndax ciir ba ñu ko joxoon danañ ko ko joxati ndax déggal gañ ko daan déggal danañ ko déggalee te new ne ne ku xam na ne fu yaakaar jeexee rek yabel dugg ñu dugg ci l'observateur xooli fa waa ji yaakaaram jeex ba tax mu def lu rëy waa ji ajoob la tudd dëkk ca kees da doon génn ak benn xale bu jigéen xale bu jigéen bi bàyyi ko fi dem sëy ak keneen ajoob mer ci loolu tax mu jël ay photo ak vidéo yu garaaw yu ko gel bi daan yónnee bañ doon génn génne ko ci internet bi tasaare ko. même si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk